ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dool dino ay maqaam yàllaw def dara rek ma bëggoon ñu def benn une minute de silence dédié ko à la mémoire de Soxna Kya Aidara Mbodj macha allah. itam wax dëgg yàlla suñu jigéen boobu suñu xarit boobu macha allah mën de ci kaw ay yokk ay leeram macha allah ma ci ay barke dëgg yàlla euh, macha ku ko xam ku ne dëgg yàlla nitu kese la muy Serigne Maysa Mbuub di rakk ci soxna Kya Aidara Mbuub ñoom ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi gisoon ngeen ko ne gis-gis woon ci mu defoon ko fi tey nag ñu ñëw seet si waat ko pour a wéccantuwaat ne suñu borom jagleel na ko ko ak fi réew mi ne dëgmal na yàlla sama borom def ko mu doon atum bàtte def ko atum xéwal def ko atum tawféex def ko atum jàmm waaye ko tam atum mucc

je vais toujours aller voir ma grand-sœur et mon père. Dans la vie, quand ils vivent, un jour viendra, tu vas mourir. Avant tout cela, je vais saluer toute la famille du Mali. Aujourd'hui, ça chauffe, mais ça va refroidir. C'est pour cela que j'ai mis pour te montrer un côté malien, un côté sénégalais. Un côté malien, un côté sénégalais. Je suis né au Sénégal, je suis grandi au Mali. À part tout ça là, un Africain. Papa Tala, Mali, <laughs> ça va devenir histoire. tous les pays, ils vont faire copie comme un Mali. Libérez-nous pour qu'on puisse regagner nos familles. Les femmes et les enfants souffrent pour faute de nourriture et aucune commodité de vie. Nous regrettons d'avoir passé une nuit blanche à Kidira à cause des autorités sénégalaises par la confection de nos pièces d'identité. Sans aucune raison logique, toute action contraire à notre demande serait préjudiciable. Encore une fois, nous demandons votre indulgence et votre bonne compréhension de l'espoir de la Teranga sénégalaise pour une solution idiome faite. Vive l'unité africaine, vive le Mali. On veut rentrer chez nous. Mali, on a vidéo partagée. On est là, Chiro Tambolo, Sosobanka. sɔn den b'an bolo den fitinin de ne yɛrɛ bolo an n'an denw de don ko kɛra togo togo a gɛlɛya la togo togo a y'an to an ka faso la a ye sira d'a ma an ka segin kasi goyita bɔ i ka ko kɛ ka faso la an ka bɔ yan an ni so tɛ an ni dugu wɛrɛ tɛ. ayi an tɛ sun min dɛ an bɛ min bolo nɔ o ye jamana. a bɔ a ka jamana kɔnɔ denw ka bila u ka don u ka jamana kɔnɔ an ka perezan jigi bi ka bɔ. makisɛli Tout Africain, ils vont faire ce que Mali a fait, Inch'Allah Rabbi. Donc on dit Quand tu vois un feu qui est il faut savoir que Dieu va amener solution pour éteindre ça. Mais je me profite là pour saluer Macky Je sais là il est aujourd'hui, ça touche, mais il peut pas faire quelque chose. Parce que c'est une attente. Une attente, si tu n'as pas fait attention, ça va fausser pour toi. sinon Macky Sall même il sait wallahi billahi talahi ça lui fait mal il est mais il ne sait pas je vais dire à Macky Sall il n'a qu'à soutenir Malien wallahi mon je veux que Sénégal aille jusqu'à chez Macky Sall il faut dire je suis son fils Je suis son petit-fils. Je l'aime trop. Il n'a qu'à penser au Mali. Papatala, Wallahi Billahi, ce que les Maliens sont fait année passée là, je te le jure, n'importe qui qui rentre entre Mali et une autre personne, Dieu va te neutraliser. C'est moi qui t'a dit. Sauf 1. Je salue tous mes clients. Et je me profite, je vais parler en Bambara parce qu'il y a les gens qui sont dit je suis revenu au Sénégal, j'ai oublié Bambara. <laughs> Même il faut malien, je suis fo ka barkada. Mali ye jamana ye jamana minute nenge tɛ se ka k'a la mali ye jamana ye jamana mun n'a tɛ se ka nɛgɛ ka buye to yen ka ayidara to yen ka sɛkuma faruku to yen ka karamɔgɔbaw to yen ka gindo alimamuw to yen walahi mali bɛ bɔ ni dingɛ kɔnɔ n'i ye ko gɛlɛyatɔ ye a nɔgɔyatɔ de don maliyɛnw ye danga min don walahi a danga bɛ n'a latɛmɛ maliyɛnw bɛ fan o fan i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bil'i kunna k'i ye maliden de an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ la jamana wɛrɛw la an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ an kana perese an kana giringirin an ka jɛ ka di masa aramani ma ala ye saya da ka nin da ka balo da ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnɛbɔ n bɛ fo n bɛ ba fo n'o ye ye ka tila ka n fo n'o ye tɔnɔ bura ye ka kirina fa saba fo ko ne ko ni ce u ni baraji k'alisa k'u ka dɔ fara duwawu a bɛ ɲa je parle en bambara je vais parler un wolof aussi papa ta ñaani yàlla problème yi su dafa nekk Mali yàlla def indi dox pour faj ko Papa Mali dig bu baax la parce que lu tax waa français nee na ñu def élection benn dëkk ñoom mi ngi am problème comme par exemple Sénégal mi ngi am problème Kaolack amu problème wawa mi nga am problème seenu am problème est-ce que élection mun naa def yombul le bon moo tax ay maliens militaires ne ne jokk ñu temps ñu stabiliser sunu pays ba pare si ñu stabiliser élection am benn problème mais man xam na yàlla dina génne Mali ci affaire bi Papa Talla ñaani gars yi defaat def année passée billahi tallahi Papa Talla ñaan ñaan bi musu ko def amul benn président ñaan bi su gars yi defa ko def noonu amul amul ay coutume dafa def ñaan ay sëriñ dafa def seeni ñaan ay féticheur dafa def seeni ñaan lu ne war na def ci àdduna kelu ku ne def la sa ñaan am na ay nit ñoom dafa dem ci àll bi ñoom dafa def trois semaines xalwa foofu ñaan rek musu ko def am na ay yeneen tam ñoom dafa dem ci montagne dem foofu ay ñaan am na ay ñeneen tam ñoom dafa nekk seen këri ñaan billahi taala ñaan bi du daan man maa la wax lool. xam nga papa Talla même ay xale yi tuuti su dafa xam dara kenn ku ne ñaan na musu def non ça n'a jamais arrivé au Mali ça c'est la première fois maa ngi ñaan Macky Sall xool ginnaaw tuuti Sénégal Mali benn la Sénégal Côte d'Ivoire benn la Sénégal Guinée benn la maa ngi ñaan Macky Sall dama bëgg sama vidéo dem ci Macky nga wax ko doomam moo wax ni su fekkee ne mun na dem ci moom billaay taala ma sol sama dala dem ci moom ma wax sama maam xol ginaaw Papa Talla si affaire Mali bi dafa jeex pays ku ne da nga xam si seen turu mi ngi ci affaire bi billaay taala si man maa la wax su deful subu yàlla dina ma laaj man ma la wax kenn ku ne nga am problème sa dëkk man maa la wax loolu kenn ku ne nga am problème sa dëkk et puis kenn ku ne sa fetal su daan Mali billaay tallaay sa dëkk dina taal patala man maa ngi protéger Sénégal bon moo tax dama génne tey wax mak Sall parce que sama deret moo nekk fii sama pap fii laa dëkk sama maam fii laa sama rakk fii laa dëkk donc du ma bàyyi Sénégal dina am problème ci sama kanam lu ma mënu wax dina ko wax en tant que xale ak respect ça fait un deuxièmement Papa Talla dama la wax sànq ma ne entre les vingt les quinze ma dina ma ay dee lu bare ma dina ma accident lu bare et puis encore ma ne élection bi su mu ngi ñëw ne meeting bi kenn ku ne nga def sarax avant nga def def meeting dafa am ay nit yu bari dafa ma jox information nee na même jour passé dafa may xeex dafa ay xulo man maa la wax élection bi kenn ku ne moytul saa bakkan dina dugg ci biir forces de Libérez-nous pour qu'on puisse regagner nos familles. Les femmes et les enfants souffrent pour faute de nourriture et aucune commodité de vie. Nous regrettons d'avoir passé une nuit blanche à Kidira à cause des autorités sénégalaises par la confection de nos pièces d'identité, sans aucune raison logique. Toute action contraire à notre demande serait préjudiciale. Encore une fois, nous demandons votre indulgence et votre bonne compréhension de l'espoir de la Teranga sénégalaise pour une solution idiome faite. Vive l'unité africaine, vive le Mali. On veut rentrer chez nous. Mali, on a vidéo partagée. On est là, Chioro Tambolo, nana u kow tɛ sɔn den b'an bolo den fitini de bɛ ne yɛrɛ bolo an n'an denw de don ko kɛra togo togo a gɛlɛyara togo togo a y'a to an ka segin an faso la a ye sira d'an ma an ka segin Kasim Goyita bɔ ka ko kɛ an ka segin an faso la an ka bɔ yan an ni so tɛ an ni dugu wɛrɛ tɛ. ayi an tɛ si min bolo yan dɛ an bɛ min bolo yan nɔ o ye jamana. an ka bɔ an ka jamana kɔnɔdenw ka bila u ka don u ka jamana kɔnɔ an ka perezan jigi bi ka bɔ. makisal de bolo yan. u k'an ka pilasiw ta k'an ka bɔ. an bɛ makisal de bolo yan an tɛ bɔ kɔnɔ bolo an b'ale bolo yan. ci barkeb Seyxi Fadilu mi. buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo noo ay maqaama yàllaawo Bienvenue sur